bu dee doxe nii de nii muy doxe nii ëllëg ji moom daanaka moog démb ja ñooy yem rek hmm. bu dee doxe nii bu soppee aw doxin nag mën nañoo doxin doxin wu bokkut ak wi dox ndax wi ñuy dox nii moom wi ñuy dox ni mënoon na fee gën de hmm. wi ñuy dox ni mënoon na fee gën fuuf ndax am indépendance 1960 ba fii nu toog fi nu toog jógaguñ fi hmm. jàppal bàyyil xëccoo xeex maa mënuma ma lepp doole ëppoo doole rek ci lañu ñu nekk réew yi dem mm-hmm. sunu sunu doom yi nekk ci géej gi di faatu ña ci penc ma ñi amuñu sëy amuñu liggéey bu ñu liggéey leen fay euh, yenn tëli ya la yàlla xam doy na yenn konci la xalam doy yàlla xam doy na marché yaa ngi lakk di fiif transport ba fii la xari jaar boo xëyee moom daal mu ngi noonu rek su fekkee ni lay doxee daal suñu bàkkee bu subaatam mm-hmm. lay demee rek indépendance ak léegi nag juróom juróom benn fukkaat yi lee mu teg wallaay yàlla yàlla dimbali amin amin oustaz yàlla nañu yàlla dimbali beneen laaj bi ñu topp tama ko ciy toftal mooy eh, léeg-léeg ñi ñuy tudd di tudd kilifa diine yi dafa mel ne réew mi mm-hmm. day traversé jamono jii moment yu jafe yu difficile yoo xam ne léeg-léeg nit ñi di wut wàllu di xalaat ne am na beneen pouvoir boo xamante ne mooy pouvoiru diine ji Eh, ñoom itam oustaz ñu ciy xaar seen taxawaay bu baax a baax ci wetu askan wi noo jàngatee eh, seen mbir. waaw man de xam naa ci ñaari groupe hmm. yoo xam ne ñi ngi taxaw ci wàllu googu xëy na. Hmm. Eh, te àggul na moom àgg benn groupe bi mooy ñi nga xam ne dañoo daje di waxtaan ci jàmmi élection yi. Hmm. benn groupe bi dañoo daje waxtaan ci ne président Macky na dellu ginnaaw ñaari groupe bi bu ci nekk xam naa bu ci nekk xam naa la ci ci ci ci ci taxawaayu ñii lii lañ wax ñii lii lañ wax léegi nag mm-hmm. su boobaa penc mi moom soo tollee fii mm-hmm. képp kuy wax di borom xam-xam rawatina ab sëriñ da ngay artu bala ngaa atte mm-hmm. da ngay artu bala ngaa wala wolof nee na artu moo gën atte te wax li nga xam ne moo nekk ñun ñuy lu ñëpp war nañ ko mën a sañ. Hmm. Eh, gis nga noonu bi ñu bi ñu ba ñu kee dañoo tuddee ay ustaas tuddewul nuy seriñ waaw dañoo tuddee ay ustaas maa yow. waaw léegi nag jàpp ne ñun waroon noo déglu ci yëf yi. Hmm. tuddee ay sëriñ sëriñ jàpp ne ñoom war nañ leen déglu ci yëf hmm. kon su boobaa bu lii xewee ah, fa aslihu baynahuma borom bi daa wax ne. in jaa nu ngi koy waxee daa wax ne wa in taifataani minal muminina iqtatalu mm-hmm. loolu nag fa aslihu ji kiñ ko sant mm-hmm. kenn jiitu ci ab mm-hmm. fa aslihu kiñ ko sant kenn jiitu ca ab sëriñ dëgg la fa aslihu baynahuma ji mooy ñoom am nañ sañ-sañu woote ñu wuy si leen ñu toog ñu laaj leen ñu wax ñu déglu leen buñ daanee leen ñu àtte leen Mhm. procédure boobu la ñu topp. dëgg la léegi suñu wootee daañu leen wusi ñi mhm. ñi opposé ñëpp bu leen waxoon tey ci fële ca ca grand wala feneen ñëpp ñëw. Mhm. bu leen sëriñ si dégloo bu ñu ba noppi daañu hee diw miikat li nga wax du noonu diw miikat li nga wax jar naa jubanti suñu borom ne buñ fa jógee képp ku jëlaat beneen beneen position bokkut ak ba ñoo ñu taxawel yéen àndale nag ki nangoo ànd ak yéen song ke wate wate mu daanu wala wate mu falli wala wate fal ko wala wate nangam hmm. donc loolu la ci sunu borom wax sañ bàkk ci suuratul xujuraat wallaay wax nga dëgg yàlla ñu ko mën a doxal ñun ñëpp kon taxawaay yooyu mënta ñàkk mënta ñàkk hmm. mhm. am na solo beneen bi ci def ci actualité